asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah mercredi 5 mille 2020 ñëw ak yéen ci yëglikaay yi sunu làmb la ñuy xëy tey doore ko mu mel ni ki nag yëglikaay bi di sunu lamb moom écrit ndakaaru daal la xëy tey gëstu ko ka ko def nag du kenn ko dul Abdoulaye Dembélé écrit ba daal jàppal ren moom quinze combats yi jot a am sept victoire lañ ca am ak li nga xam ne moo di huit défaites mu mel ni ki nag écrit ba fi mu nekk nii moom ba yax yi jóob yi ki ni bàyyee làmb ji ba tey bëreetul daa mel ni ki daal écrit ba ci diggante nelaw ak yeewu ca la ne maanaam demuñu cëng dikk ñu mbay laar seeni mbir daal dox moom da koo deful bu dee anti la wala muy tonnerre numéro deux wala sibel moom jàppal ñett ñi combat daf leen a xaw a të ki nga xam ne ni moom moo di nag jàppal kooñaa numéro deux moom ay mbiram saful suukar saful xorom maanaam daal demul dikkul yooyu nga xam ne nii moom la yëglikaay bi seetlu am na feneen xale yoo xam ne nag jàppal daa mel nañuy signalé woo baax na maanaam daal mënees naa xaar ci ñoom ëllëg dara ka nga xam ne moo di booy juuf booy jobaas ak ki nga xam ne moom mooy ama bu ndakaaru ibu afiya xale yooyu daal ñu ngay signalé bëgg a génn waaye écrit ba daal moom dox moom dafa tukko amadou kati jóob nag ma ko yore wala boog mu bokk ci ñu ko sanc moom mu ngay wax ne na xale yi moom benn copie la ñu am te ci lañ war a copier maanaam daal benn exemple muy ka nga xam ne nii moo di yax yi ñoom fi mu nekk nii seenub taxawaay noonu lañ ko war a taxawee maanaam daal a roy ci Yékini ngir mën a yóbbuwaat écurie ba fa mu nekkoon ndax nag moom muy Yékini ci loo ci mën a dégg ci wàllum taxawaay fi mu nii écurie ba ñàkk na ko ba defatu ko am na keneen koo xam ne nii moom ay fixation du fenn fa dul daal fa nga xam ne nii moom moo di ci ténor yi maanaam daal lag moom bu bëggee dégg dëgg moom mbir moomu daal la taxawee maanaam daal mag ña rek fa mu bokk daal fa la bëgg a bëree yëglikaay ba xëy tey ñëw ci moom am na yeen ñoo xam ne nii moom ku leen dimbali ba ñu bëri fi mu nekk nii daal daa mel ni waris na koo wër muy waa Thiès yi champion Thiès yi moo xam mel ni gars yi dañ leen di sappe maanaam di leen fàtte te kat ci mbir mi la ñu bokk kon nag na leen a gestu ñu bëre bokk ci làmb ji waaw ñi nga xam ne nii moom ñoom ñoo di ñoom ñoo ña nga xam ne nii ñooy waa Kaolack moom seeni mbir daa mel ni daal fi mu nekk nii daal dox defatu ko cuuc nag moo xëy tey di wax loolu jàpp na ne làmb daal fa nga xam ne nii moo di ca Kaolack moom nam fa war a doxe wala nañ ko fa doon xaare mu doxe fa daa mel ni fi nekk ki ni daal doxewu fa nu mel ni ki noonu cuuca xëy tey ci yëglikaay bi di wax lu mel ni ki noonu leneen loo xam ne nii wala beneen yëglikaay boo xam ne nii moom danu fay dem muy record record nag moom tey fa mu xëy ñëw mooy di ca ki nga xam ne nii moom moo di guy gi ak ki nga xam ne nii moom moo di rëg-rëg mu mel ni ki ko chronique daal la ca abu nduur def maanaam topp leen ñaari mbëri la ko commencé ci mbuur géej ca drapeau chef de l'état ba ba tey fi nga xam ne fi la ñu mujje ba combat ba mujje taxaw ak la fa am ci ay jaar jaar yépp yépp yëglikaay bi xëy na tey defuñu ko benn par benn leneen loo xam ne nii wala kenn koo xam ne nii yëglikaay bi ñëw na ci moom moom itam day ak écrém ba muy Malick Niang Yoff daal fi mu nekk nii seeni mbir daal ah xaw naa xaw a taq suuf ndax nag loo ci mën di dégg six victoire la ñu def trois défaites moo tax yëglikaay bi ma ko ci 66 pour cent de réussite écrit Yoff ca la nekk leader ba moom di Malick Niang ay at yu baree ngi ni yoo xam ne kenn gisu ko ci làmb ji mu takk ngémb bëree yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom keneen koo xam ne nii moom jàppal ci xat-xat la nekkoon yàlla def na mu génn ca muy Luc Nicolaï ñu gracier ko ka ko def di président Macky Sall ci ba ñëw suba la tabaski Luc nag fi mu nii daal am na lu nganda nganda ngan loo xam ne ni mu ngi koy xalaat moog estafam record a xëy ñëw xamal ñu ko parce que nag démb moom lii di estafam Luc woon na leen ca këram dajale leen maanaam daal lañ ko xamee woon daal daa mel ni fas yéene fa la fas yéene tegaatam yoo xam ne yu ponkala la Luc Nicolaï di a xëy tey ñëw nu ko du ñu génn mbuur ndax dañuy dem Leewtoo point net ñu ngi xamal ci xalima ndey Kumba Faal daal ne li am ba des moom Bombardier moom ku ko doon xaar boo yeboo nga tàccu wala boog nga nàmm say bët ndax di nga ko gis ndax nag réew mi di Sénégal moom ñëw na fi te boom fii ñëw nag bésu tabaski daal la jóge fa nga xam ne moo di ca réewum France si réew mi nga xam ne moo di Sénégal loolu la ñu Leewtoo point net tey xëy xamal waaye am na loo xam ne tey fekk nañ ko ca Leewtoo point net fekk ko sunu làmb ko fa nga xam ne moo di record muy aw tiis woo xam ne dal na ci làmb ji muy ki nga xam ne moom moo di Papa Yade numéro 2 nekkoon xale boo xam ne daal bu amoon avenir la ci lamb moom nag moo génn àddina ci accident wu moto ñëpp ñëw nañ tey di ko rendre hommage mu mel ni ki nag atum 1993 la ganewoon àddina génn àddina 2020 mu mel ni ki daal yàgg mar la ma la yàgg di wax rek kullu nafsin saayiqatin mawtin yàlla moo yor doole moo yori dogalam te lu ko neex lay def xanaa ñaan yàlla mu yërëm ko te jéggal ko waaye tamit yërëm bépp doomu aadama boo xam ne génn nga àddina ndax nag fi mu nekk nii moom ah réew mi yàgg mar xaw naa yëngutu waaye lépp nag nan ko delloo borom bi rek waaye bu yàgg du man a ñàkk faw ñu jéggaloonte balonte ak ànd te yàlla tax tey waxante dëgg ndax lii su ma juumul buñ delloo ginnaaw tuuti daa mel ni yëngu-yëngu yëg yu mel ni daal Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum junjoon na ko fi li ñuy dimbali nag noonu na réew mi nan ko sang sang bi du lenn yàgg maar loolu sang xol yi te jàmm ànd te yàlla tax dee nag moom mbiru suñu borom la ku repp da nga faatu waaye yàlla na yërëm yàlla na yàlla yërëm ñi faatu yàgg maar mbokk waa Leewtoo TV ñu ngi leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndaloon nag si revue de l'arène bi ñu ànd ak yéen nag si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu naa la nag sa internet yi na mënal lool lool démb moom góorgóor naa def la ziar di la ñaanal jàmm non duñ la clash parce que li tax mooy xam nañ ne jàmbaar nga au contraire dañ lay encouragé ndax internet yu ay borom baax lañu ñu ngi leen di nuyu ñoom tamit di leen balaax si tabaski bi ñu jóge nii di leen baal di ñaan yàlla bool sallallahu alayhi wa sallam di la nuyu di nuyu képp nga xam ne daal yaa ngi ñu ci Leewtoo TV. ah nag may jéggul nag xam ne comme li ñuy wax rek xel day fattu. Mm-hmm. parce que dem bu may def revue bi ak jàngatu aan bi damaa fàtte dugal damaa fàtte wax dëj ki nga xam ne mooy Papa Yade numéro 2 ñu bëri nag li nga doon def ay commentaire ak demoo naa mu tax dugaloo ko si revue de l'année mais xel day fattu rek maa ngi jéggulu bu wér Babacar waaw loolu day fàtte la fàtte moom moo mag moo mag ñëpp te ñëppay fàtte nañ ko dul fàtte doo nit waaye kuy fàtte dëkk ca tey doo tey tamit doo nit hmm. waaw papa yaat moom defe naa ne ñu profité rek jaale ko waa Tëngéej Tëngéej yëpp waa jaale ko waa ahlu lam parce que defe naa ne li ñëpp wax rek mooy dëgg te ku ko gis tey ku gis image yi ñu ko yóbbu ci këram gu mujj jëbal ko boromam defe naa mu lay wan ne kon fa mu dëkkoon taxawaayam baaxoon na fa hmm. ñi mu seqaloon tamit seen digganteeg ñoom rafetoon na ndax Père Max Mbargane dama koy dégg mu ne bu nit faatoo armeel ya bëri jàppal na ko dem a baax waaye bu sigil ndigaale bëree jàppal na ña bàyyee baax kon moom baax na moom mi dem ña bàyyi baax na ña li ñu metti na nag parce que li tax mu metti xale la boo xam ne nii fi mu demee ci ndawam la demee xale la boo xam ne amoon na talent ci li muy def par rapport ak defe naa ne boo ko gisee ci biir làmb di nga xam ne kii ku bëgg li muy def la ku ci ñàkki caaxaan la te defe naa loolu li koy wane li koy li koy may nit mooy yar bu ñu lay yar ngay tax loo dugg rek def ci fulla ak jomb kon daal yàlla na ko yàlla yërëm taxare ko aljana di profito di ñaanal xalifa ñaseen bi tamit Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass yal na yàlla yokk ay lem ñu si barkeem jóge na fa ak yeneen kilifa yoo xam ne ak yeneen nit yoo xam ne ma fi euh, mooy dogal hmm. parce que moom moo ñu sàkk moo ñu moom te saa su ko neexee rek mu jëlee ñu fi ca na mu ko neexee yàlla làmb ji tar na si euh, diggante ki nga xam ne mooy Jules Balde Junior ak ki nga xam ne mooy Babay euh, mooy Papa Yade ñaari espoir làmb bu ñuy wax Boylo Boylo sax moo njëkk a génn àddina mm. foofu Jules Balde Junior dëkk côté boobu la dëkkee defe naa bi mu génne àddina ak bi Jules Balde àddina est ci semaine lay toll mm. mu nekkoon xale bu nekkoon ci làmb tey gis nga ah mais àddina tëddee noonu day kumba li ma la wax la rek euh, euh, mbiru suñu borom la rek yàllaay dogal mais nag dafa am am loo xam ne nii nañ ci gën a bàyyi xel rek te wax naa ko léegi bi mu samay daaneel nañu gën a jàppante te yàlla tax xam nga ànd te yàlla tax di balonte xam ne réew mi am na ay kilifa te kilifa yooyu li ñuy faral di wax nañ ci bàyyi xel di ci veille bu baax a baax te am na loo xam ne Serigne Cheikh yal na yàlla yokk leeram junjoon na fi ay at ci ginnaaw nañ ci gën a bàyyi xel te la mu waxoon du lenn lu dul du ay tuur du nangam nangam mais fóot xol yi la wax. fóot xol yi li ma lay li ma yéene sama bopp sol mbubb mi mu rafet ci man ah ma mu yéene la ko pour solal la ko. Mm. waaye bu ñaawee ci man ma bañ la ko yéene pour solal la ko. loolu dina tax na yàlla gën a indi yërmande suñu kaw dee nag moom mbiru suñu borom la waaw Babacar loolu am na solo nu ñëw nag ak sunu lamb sunu lamb nag nee nañu 15 combats 7 victoires ak 8 défaites nee na Yékini daal bu mu demee ba léegi ndakaaru daal dóorul fayul maanaam day somnoli daal day dajante comme ni ko wolof Njaay di waxee. dajante maanaam ne moom yaakaar naa ne comme ni ñuy wax rek defe naa ne ah 15 combats 7 victoires 8 défaites au résultat naa normal waaye bu dee ci nombre mooy xale fa ne. ñoom defe naa tey ñoo am comme li olof di wax waruñoo mujjee pousse bi mu réer parce que defe naa yaxi job yi kii ni ku nekkoon ci ginnaawam mu bëre ba bàyyi bëre defe naa war na bëri lu bëri loo jàng ci mu roy ci ñoom mais nag mel ni Yékini Ndey Kumba Fall ah, loolu jafe na mm. loolu moom du lu yomb waaye Kati Diop tamit loolu la wax neen daal suñu bëggee mel ni Yékini dañu war a def ni Yékini waaw parce que loolu mooy mooy li am ki moom boo bëggee mel ni moom da ngay jéem a roy ci moom waaye Yaxya Jóob nag ah mel ni moom ci làmb du du yomb parce que la mu amoon ci bëre am ko ci personnalité am ko ci xam li mu bëgg ak li mu ko jaraloon defe naa itam mbir soo ni bëggee moom ah noonu ngay def rek kon xale yi fa ne exemple bi du leen sori mooy yax ya waaw journal bi tam ñëwoon na si ki nga xam ne mooy Lac de moom daal nee pare moom daal xelam mi ngi ko teg daal si VIP bëggul bëre wàcc bëre xale yi nee nag loolu nag nan na ko indi ay jafe-jafe loolu pour mun a sëgg bëre nag waaw moom de defe naa fa dafaa bokk mbir ne faw fa ngay bëgg a bëre te defe naa itam wane na fa lu war a tax mu mën faa bëre te defe naa du kenn naan kii mooy Lac de Guiers loolu xam nañ ko xam nañ li mu def ci làmb kon defe naa foofu la ay adversaire gestu leen may leen loxo waaye loolu ci moom lay dépendre quoi. Mhm. waaw journal bi tam mi ngi ñëw nag si mbër yi champion yi nga xam noo nekk Thiès ku si mel ni Modou Anta ak ambulance ñoom daal nee nañu promoteur dañ leen zappé gisuñu promoteur dégguñu aussi ay négociations jëmee waaw warees na leen a gestu nag. warees na leen a geestu ndax defe naa ambulance bu Thiès donte teglante na ay defet waaye xale la boo xam ne futur champion futur champion la ci bu liggéeyaatee gën a xamaat li muy def bu ba gën a tegaat ay mbiram ci yoon parce xale la boo xam ne am na xorom mën naa bëri macha allah mu doon tey itam du ko kenn di présenté defe naa tey ku gis fi mu jaar ak mbër yi mu bëreel ñi mu daan ak ñi ko daan yaakaar naa ne kenn du fi nekk naan la de gauche a koy tëggi naan ci meew mi te defe naa ne ñoom ci lañ bokk bu baax a baax loolooy lay am ñu ngi ñëw tamit journal bi ñëw na si cuuci cuuci nag mi ngi wax ay dëggam nee na daal làmb ji doxul waxuma cuuc de cuuc cuuc rek la jàngatal <laughs> jàpp <laughs> waaw cuuc daal nee na làmb ji dafa desee des dox ca Kaolack kon ñu ciy profité di nuyu waa Kaolack yëpp waaye di wax daal kon nañu fexe làmb ji dox ca Kaolack ah loolu nag mooy promoteur yi gëstu leen rek journée yi bëri moo xam lit simple bi la lit avec frappe bi pour mu gën a mën a dox fa nga xam ne Kaolack ga nga xam ne mooy Kaolack ndangaat suñ jógee nag euh, suñu laam nañ dem fi nga xam ne moom mooy guy guy gi nag si xalima abunu dafa jaadaar retracé waat épisode bi fa la combat bi commencé tàmbalee défier dëkkante bi ba combat bi fi mu taxawee fi nga xam ne moom mooy Dakar nee nañu ça a duré 399 jours maanaam daal fan ya bëri na trop waaw parce <laughs> que loolu loolu c'est normal parce que li ko waral mooy làmb tëdd noonu am na combat xam nga ndey Kumba Faal mu ne ko du yomb parce que ku ne xam na ne guy gi li ma waxoon keroog rek dafa am lu bare bare bare loo xam da ko def ci lamb bi mu ñëwee ak slogan am ak yeneeni i am estilu boppam am lu mu créé waaye yemalewu ko tamit ci wax rek da ko yemale da ko wane ci jëf bu rek ay mbër yu mag daan leen am ay combat yu mu perdre am lu mu wane waat ba tax tey ñu mu bokk si mbër yu mag yi ci réew mi Reug Reug tamit ñëw di xale wane boppam ci lutte simple bi ñu ne déet na waaye mu naa a ànd mais na tey ñu ne loolu ko Abou Ndour toppe tamit lu jaadu la waaw am na solo trop ñëwaat ci baaka dafa mel nag euh, seen ñaan bi nangu na ndax euh, li Nicolas ginnaaw bu mu génnee fee mu nekkoon si ndungu si nee nañu nag démb tax def na benn réunion mag ak estafam ñoo daal pour daal tàngal ba mu tàngal. waaw ñaan gi day du dama naan du man rek ko doon ñaan waaye man daan naa ko ñaan parce que li tax ma ko doon ñaan mooy euh, ndey ku ma dafa am loo xam ne nii buri man taan ma cum lem <laughs> léegi ni ko laay mënta ci sama gis-gis mënta ne kaso ñu ñu tëgg combat bu toll mm. tax ma doon ñaan yàlla yàlla génne ko foofu parce que li tax mooy lig ni ko laay toll na noonu ci làmb toll na noonu ci réew mi te nag li ma la waxoon rek nit ki man am na loo xam ne bu ñu jëflantee duma la jàppe lu dul nit bu baax te dañu am lu ñu jëflante Luc Nicolaï dama ko fekk foo xam ne nii ay yoon mu wax ci sama micro loo xam ne nii ña mu signal contrat sa ko ci ñoom te defe naa loolu cër la ak respect bu mu ne yéene wuñu kenn kaso waaye nag moom bu ca nekkee itam day bokk ci ñoo xam ne dañ cay xar suñu tànk tubéy ngir mu génn fa kere defe naa ne ah bi ma jigéen ni génn ci kaso bi wax dëgg yàlla jotuma ko de waaye jot naa koo xam ne nii muy bës nga xam ne ñoom tamit ñoom ñaar samedi ak dimanche la wax ko sama contentement di ñaan yàlla daal loolu muy nësër yàlla na ko yàlla réussir parce que nag lig li ma la wax rek lig Nicolay ay Gaston Mbengue Pape Abdou Fall ay sëñ Modou Niang ak yeneen ñi mel ni ki ñoom bëri nañu dañoo bokk ci làmb ji kon dañuy ñaan yàlla ñu fii ne di mën di réussir mbir yi pour que sunu làmb di mën di jëm kanam waaye lig daal génnam gi moom day ko ma man Babacar day wax dëgg yàlla ça me fait neex na ma trop trop ci xol di ko nuyu nag di nuyu soxnaam di nuyu doomam wéli ndax wéli jóge naa fi di dem Gàmbi mu woo ma téléphone taxawloo ma mbuur jox ma añ mag équipe ba ma àndaloon yépp jëm Gambia te loolu am na am na ndey ku ma la ko defal nga wax ko man baax rek laa xam moom laa bëgg di seq ak doomu aadama waaw du mën a ñàkk raay ba tamit maa ngi koy nuyu ndax ku ne raay ba ne léegi Nicolay di nuyu waa mbuur di nuyu waa mbuur yëpp rawatina seen champion bi di Bombardier ak faat Dia rakkam di suma xarit waaw waaw continuer xanaa kon su ma paree kon doo tëj de. tëj nga ba pare non man de man tëj moom mënta <laughs> ku ubbi faaw nga tëj. <laughs> ni ñëw nag sa écurie nee ñu ne écurie nag perte de terrain nee ñu daal def nañ 6 victoires ak 3 défaites réussite 70 pour cent

dem euh, jour tabaski daal la Bombardier gannaaw mu defee ñeenti at ñeenti weer foofu noonu si France ñëw na yibbisi na nag jour tabaski 7 heures du matin léegi nag mi ñu xaar daal loolu Gaston joxe avance yi Babacar. waaw mu mel ni kon daal 4 mois la def fa nga xam ne mooy ci réewum tubaab moom Bombardier sa ñaar ah waaw ñaareel am na si na si daal droit parce que nag ñaareel moom ñetteel ba ñeenteel yàllaa ko digle moo gën a wóor benn jabar wóorul ma waxaat ko encore une fois donte moom laa yor Bombardier di ko ñaanal yàlla rek retour bi yàlla na nekk retour jàmm moom daa bokk ci mbir yi defe naa kon fi mu nekk nii daal li des mooy ah yàlla na suñu papa garçon génn avancé bi moo ama seen ñu finalisé ko ngir avancé mën a taxaw ah Babacar nañu jeexale nag ak lu tiis ki nga xam ne mooy Papa Yada euh, sunu lamb ak record ak Leewtoo point ak ñoom ñëpp ñëw nañu si jaar-jaar ki nga xam ne moom mooy Papa Yada nee ñu daal 1993 si la judd génn nag àdduna 2020 muy xale bu ndaw dem na si digg ndawam Babacar boo xoolee loolu su ma juumoon 27 ans la mm. diis may na ma waxoon rek laay waxaat di ko jàll waa amul lam rawatina waa Rufisque mu nga xam ne fa la fekkoon baax rawatina mbër yi mu doon partagé l'équipe moom ay magam ñoom ama neex mm. doomu dàngu ñoom mu jaxate su ma limee dinaa jur ay frère ñoom gàmmu géey parce que ñoom ñëpp ñoo bëggoon Rufisque ak turandoom sax tamit ku boppam papa yaat bu mag moo lay wan ne ñoom it ñu ngi défendre couleur Rufisque bu baax a baax te moom mi bokkoon na ci maanaam desu ci woon ginnaaw parce que ne newoon na xale boo xam ne defe naa ne ku am ak moom bés ci làmb moom di nga xam ne tey am nga bés te loolu li ko waxam li ko a rek moo doon fulla am faydaam ak jomam kon daal li ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jégal xare ko aljana mu bépp mbindaafoon bu ko fekk ak ku ko fekk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax fi nekk nii ñaanal ko rek moo des Mm-hmm. Babacar nag si kàddu yoon la ñuy tàggoo di jox di daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu sama yaay mère soo nuyu sama doom Mouhamed Diouf nuyu Astan les chéri Khadija Diallo depuis Parcelles ak itali nuyu ki nga xam ne mooy Khoudia Seck chéri A Seck nuyu Abdou Gueye euh, Baye Fall jàmmagan papa si te nag Babacar affaire bi dama koy wàññi parce que Bombardier nee na sama dédicace ay dóor kese te yàlla xam du ay dóor samay soppe kese lañu Babacar ma jox la micro bi nga boo ziaree gars yi da <laughs> ngay dóor te fawees parce que ku la defal lu baax nga wax ko sax bien sûr nit ki bu la wanee mbaax loo ko mën a def dugg remercier bi mm. ci micro bi waaw ah, jeex na rek yow buy dóor dam yow moom mu la ñu war a dóor waaw ñoom suñu sëriñ ca France <laughs> doo tëj <laughs> di la nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre à travers le moo tax à travers di nuyu suma waa dëkk waa ak yaay encore une fois maa ngi leen di jaajëfalaat parce que nay guma faat li ma waxoon sànq rek mm-hmm. ah, ba tey yow jeex ba ni ma fay jógee dem chaque jour nit ñaa ngi ñëw di ma ko jaale suma papa ak yaayam kon defe naa daal waa ak yaay ak dëkk yi ko wër ndondoon mbomboy njamaan yi gaat ak dëkk yi nekk foofu yépp maa ngi leen di ñaan yàlla daal yàlla na yàlla defal jàmm ñu sax datu dara ni barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu groupe su ma limee dinaa jóg nuyu naa mais nag bu ma ci may ñàkkatu fans club Leewtoo ak Babacar ak fans club Babacar ñoom mention spéciale tuuti Yaay Sarr doo ko nuyu non tuuti Yaay Sarr déggu li ma la kooku ci man la bokk ma ci moom kooku moom moo Khady Rose Ndiaye Awa Diop ak Asi ak Asi mu gis nga ñooñu yàllaa ma boole ñoom ñu mag ñoom démb démb la ko atu tey yàlla na seen jàmm yàgg amiin ba suba incha allah